Coupe d'Afrique moment fort le temps fort pour la jeunesse de ce pays waaye Macky Sall la Coupe d'Afrique Le peuple sénégalais gagné la Coupe d'Afrique bu ko ko kenn Donnez-moi moi, président de la république je ko ne félicitations. waaye qu'elle ku connaît ci nous war nañ ko félicitation parce que nous ku nekk supporter nga ñaan nga encouragé nga ñaq nga ci kanamu télé bi il footballeur waxuma affaire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 il faut que bañ koy condamner juge bi prononcer lolu lolu amul casier judiciaire vierge amana sax mi ngi ci liste électorale mhm. nga ne du candidat ñu nangu won ko ba romb ba pas élection présidentielle romb ñu ñëwaat sétane ans, candidat ci élection locale élection locale yi passé ñu ne duñ ko continuer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

suñu nous respectons institution judiciaire nous respectons parce que ñi avons jalgati institution judiciaire ci réew mi ñu ngi magistratures. ci magistrature du ñëpp magistrature magistrat yi machallah, dañ ñenn ba ci poste yi ñu ne poste yooyu fu leen ñu dem duñ ko nangu ndax ndax